jàllale rek yow yaa ngi fekk xamoon ñan lañ prévoir. non non yaa ngi fekk damaa laaj bas mu ne ma nañ jàll. bas amu fi dara bas installé wu. waaw man xaw ma. Sëli Sëli c'est bon. gisoo ma nii ni nga jàkkaarloo. baal ma xool. ah mais nee na mu kii wu xaw ma bas laa laaj bas amu fi dara bas nag laay laaj. waaw mais bu mu jël paaka. waaw da ngay dégg yi jël nit ñi jël nit ñi léegi dara moo tax tey ñu bëgg a gudd gudd imposé micro yi tegu ci. dëgg la dëgg la dëgg la man dëgg la waaw c'est ça. voilà.

waaw waaw waaw

C'est scotché li nga mën a à ak yii su le après nga boole yëpp voilà à D'accord. ak affaire bi mooy voilà d'accord D'accord. d'accord. d'accord d'accord le d'accord. Para

waaw

Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, eh, Malik. Bài bài bài quẩy micro cũng cắt là micro cũng bên lần bài quẩy bên nặng quẩy quẩy quẩy lên để micro lên đàn nó đang nặng quẩy quẩy đang cái nặng anh đang cái đang cái waaye xool waaye stoppé stoppé stoppé Andiamo su, su, su, su. Sei buono? Che manna? Qua, nice. Alla bimba. Bravo, bravo, bravo. Thank you.